asalaamaaleykum si internet Dakar Midi gannaaw bañ leen nuyoo di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay kenn ku si ne dañoo toog ki nga xam ne kenn du ko présenté si même réew moom Modou mu Kaburo dañ koy bàyyi rek nuyoo ñu fas yéene waxtaan ak moom ndax dañ ko gëj a gis moo tax suñu mbokk internet di ko laajte sëñ Modou ñoo ngi lay nuyu. waaw moom Thierno maa ngi lay ziar di la jox sa wàcc wàccuwaay di nuyu internet Dakar Midi yëpp di ziar Ousmane Noreyni di ziar kilifa gi Cheikh Alassane Sène. di ñaanal euh, Dakar midi suñu borom dafa ko taw tawféex ak taysiir di ziar maam Thierno di ziar euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci Dakar midi yëpp di nuyu Sénégal yëpp di leen wax ni ñoo fi rek tekk ci ay projet quoi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ñu ne Modou tey euh, fa la nekkoon ndax gisuñu ko gisuñu ko mu génn single gisuñu ko dara waa nekkoon da nekkoon su ruuk gars yi ñu laaj fa la Modou nekkoon. waaw macha allah ñu woon ci suñu kii di préparé wu di am ay. nekk loolu daal di euh, di xalaat euh, yan son la ñu war a mën ak yan woy la ñu war a mën a génne ci yeneen ci bi parce que ñun ñëpp ñun moom bu nu xamee rek ñun ñu xam ci tàgg katu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma tax ñu ne woon euh, mais incha allahu rabbi am na yu ñuy préparé ba moo tudd fii le 7 décembre sax incha allah mooy sunu guddi yeneen ci bi ñuy def Euh, incha allah sooy ñu wàcc yonent bi euh, liggéey nañ te bu génnee euh, Sénégalais dinañ ci am mbégte ak contentement bu baax a baax a baax. incha allah dañ doon gis tàggukatu Seydina Mohamed yu bëri maanaam période gàmm li ñuy génne li nga xam mooy son tey ñu gis sëñ Modou moom génnewut ñu gis ñu bëri ñoo ngi génne nga xam mooy son tàggukatu Seydina Mohamed musiciens yi rappeurs yëpp ñu gis ñu ci gis ñu ci ki nga xam mooy Modou. waaw dëgg la kay xam nga moom man moom. Euh, du ma dama am sama programme bopp quoi du ma gis ni euh, diw génn na rek ma naa génne quoi mais boobu ñu ngi woon suñu ruq di di liggéey daal di liggéey suñu liggéey. te euh, macha allah lu ñu liggéey bu neexee yàlla gëm nañ ni bu génnee di dinañ ko bëgg daal àdduna dinañ ko bëgg. parce que ñun ci yooyu la ñuy dox daal waaye ñi di di félicité tamit ñi nga xam ne ñoo génnee way ci yonent bi ci gàmm gi. di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex ak euh, ak ak ak taysiir mm-hmm. mais bon ñu ngi woon suñu ruq daal di liggéey incha allah ñu ngi waaj te euh, di waaj a génne euh, ay single ak ay benn album te bu génnee incha allah yi dinañ ci kontaan dinañ ci am mbégte bu baax a baax a baax baax machallah allah. Ah, sëñ Modou gis léegi ak ñi nga xam mooy tàggatu Seydina Mohamed yi suñuy génn di woy Seydina Mohamed dañ si boole lañ wala ñu rax si loo xam ne bokk si maanaam ay wàllu instrument. ay waaye tëgg ak fecc ak yooyu est-ce que loolu méngoog naag li nga xam mooy takkatu Seydina Mohamed waaw xam nga yeneen ci moom day koo xam ne ci euh, mooy mooy koo xam ne maanaam euh, euh, lépp lu ko waaye def rek na ko def ci li sëñ Tuubaa waxoon ne ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati mooy guddeem googu boo koy boo koy boo koy màggal na nga ko màggal ci ci sunna boo ko màggalee ci sunna jàppal ni àjjana lañ dong la lay jural yow mi woy yonent bi ak euh, instrument boo mën a woyee yonent bi essentiel na tegu ci ay norme al adab maanaam ay teggin na tegu ci ay norme yoo yoo xam ne ay no ay teggin lay doon daal ndax ki ngay woy kenn du moom te du kenn waaw kooku waaw euh, kenn kenn menul ni moom te kenn du jéem ba mel ni moom ilaa yawmi diini ndax sunu borom moom moo ko wax euh, xaatimul anbiya wa imaami kullu mursalin waaw li yàlla bind lu ne tamit euh, moom mooy ki nga xam ne mooy xayru xalqillaay yàlla bind lépp moom mooy ci gën kon ku gën ci nit ñi kooku boo koy tagg ak boo kii ak instrument yoo ko mën a boole na na ànd ak ma boobu ak instrument yoo ma ndax yonent ci moom lu neex lu ne rek ci moom la fekk baax lu neex lu ci moom la fekk baax boo xoolee ki nga xam ne moom tele bi di Cheikh Alassane Sène way na yonent bi naan Moustapha mi may way mooy sangu yeneen yee gars yi dafa am instrument yu ñu koy booyal yoo xam ne day ànd ak teggin ànd ak i ànd ak war ma waaye li ci li ci bon daal mooy dem ci ay foo xam ne daal dafay nekk majalisa saxaawa góor ak jigéen dañ fay daje sol seen colin wu bon wala nga dem foo xam ne daal di di di ci way yonent bi loolu moom rafetul daal rafetul maanaam ak koo mën koo ko mënti doon koo koy way da nga war a éviter boîte de nuit yi wala di ko way di di di di di di génnee soxna yoo xam ne daanaka seeni seeni karaw yi nga xam ne yëpp ngi ci biti ak seeni seeni yaram loolu ku yeboo kenn ku nekk bu koy def tamit dafa mel ni mag mu jaaxaan di tuur ndox rek balaa kenn sa bopp ngay ngay kiiwal rek ngay ngay yooyu nañ ci bàyyi xel baax te xam ne kooku kenn du moom maanaam ba léegi ñu wax ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom mm-hmm. soo dem ba koy ba koy woy wala sooy dem ba koy kañ daa am noo ma war a mel mm. maanaam si wàllum solin mm. si wàllum doxin mais dañoo gis léegi gars yi affaire dafa dafa maanaam dafa dafa dafa wëlbatiku mm. lu musiciens yi doon doon di woy léegi moom la takkatu Seydina Muhammad yi di way maanaam di maanaam di def seen bopp yoo xam ne car mm-hmm. allah yow mi yow miy ta takkatu Seydina Muhammad xam naa yàgg nga see rencontre loolu noonu genre yooyu noonu noo noo ko jàngatee waaw loolu moom yëf yi tey la rek ak yëf yi bëgg sa bopp rek ak topp sa bakkan ndax képp ku koy def tamit yaa ngi def loo xam ne moom xam nga Sénégal lañ nekk nag Sénégal dafa am ñoo xam ne dafa am ñu ñu bëgg maanaam ay ay ay parce que yonent boo koy tagg doo doo yow miy tagg yonent yi bokkul ak euh, musicien ba wala kenn ak kenn bokku leen su fekkee léegi li musicien di def la ñuy sol ci kiliba bi yeeg yooyu nga bëgg andi ci xamoo ki ngay ki ngay xamuloo ko te loolu moom ku koy def ku ne war nga koo mën a bàyyi xel bu baax te xam ne ki ngay tagg foowul foowloowul te suñu borom da koo fonk lool am fu ko teg ndax boo xoolee jàkk yeeg jumaa ji moom da nga ciy dégg turam jàkk boo mën a dem ci àdduna rek moom kese ngay dégg turam ginnaaw suñu borom waaw xëya boo boo demee boo ne ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis moom Eh, eh, eh, dayo googu sunu borom jox yow bu la yàlla dimbalee nga yor baat bu neex di tagg yonent bi mais mën nga sol yu yiw te rafet te rafet lool te bañ a te bañ maanaam comme gars yi nu ñu koy defee léegi Sénégal du ñu bëgg genre yooyu maanaam star dama damaa bëgg doon kutoo kut dama bëgg doon star danaa def loo xam ne loxo day dem gémmiñ yooyu moom boo ko ci def àdduna dong nga cee am waaye doo ci am yàlla doo ci am yonent bi waaw moom nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax te xam ni ñi ñi tàgg yonent moom ak jagle la ak jagle la du da ngay jékki-jékki rek nekk ko koy nekk mu mu nekk ci ak jagle suñu borom bu ñoo ko jaglee nag da koy xam bu baax a baax a baax boo xoolee tey ji mag ñi fi nekkoon Sénégal ak feneen fu dul Sénégal ñoom bu seyreek xasaanoog ah ñoom Kaaba jamono yonent bi ba ci wàcc ci mag ñi Cheikh Abdou Khadir Jeylaani Serigne Touba Cheikh na Cheikh Sadul Abi Cheikh Sidi Hadji Malick Cheikh al Islam Baye Niass Seydina Limaamu kenn ku nekk maanaam ma ngay góorgóorlu ci way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñooñu buñ koy way dafa am norme yuñ ko koy way yow nag yàlla bu la mayee nga yor baar bu neex di ko mën a yëkkati ci kaw maanaam mën nga koo def ay clip mën ngaa def lépp waaye eh, saa su ne da nga war a am benn différence boo xam ne xam ne yow li ngay def du saayal du yëfi foo du yëfi at du yëfi kii ndax da ngay am àddina am àllaaxira yonent moom boo ko tegee ci yoon di ko way mu jaar ci norme yi mu war a jaar da nga am àdduna da nga am àllaaxira mais ak jamono jii nii ah fure mu toll da gis ñu su bëri maanaam suñ tàggee benn yoon ñaari yoon seen tur àgg fenn fii maanaam dañuy jaay wala nekk na ma man star te ki ñuy woy moo ñu gën a doon star ñu ñëpp tey ji da gis maalum appétit sax am na ñoo xam ne sax tey ji mën nañ am nekk foo xam ne kenn nekku fa mhm. te yonent bi moo gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam mais da gis ñu su bëri tey ji maanaam ni ñuy doxalee. Mm-hmm. comportement ba si maanaam seen solin ak seen jëfin ak yëpp mooy si loolu. xam nga ñoo xam ne dañuy xëcc relation complexe la lool da ngay jékki nga woy benn yoon am benn tur rek maanaam la fekk ñu ne diw day fréquenter artiste bi rek. Mm-hmm. ñoom loolu complexe lay doon si ñoom léegi da bëgg nag àdduna yëpp di ko xam. da ngay bëgg àdduna yëpp di la gis a kooku dangay gis parce que yow da yooyu ngay bëgg daal maanaam yow da ngay bëgg maanaam bu génn maa génn naa benn clip ñaari clip génne naa kook diw wala maanaam diw ak diw ak diw maanaam da bëgg yow fi nga nekkoon doo fa bëgg a nekk dangay bëgg yow dem foo xam ne fekk ñoo xam ne te ñooñu ñoo la war a fekk si mais yow jàppal ni àdduna du ne ba nga fekk si leen waaye nag boo demee nag di leen fekk si ca ñoom loolu ñuy def maanaam di leen fekk ca bois de nuit wala deen fekk ci yenn public yi boobu yow xamoo ko yonent bi sallallahu alayhi wa ma moo tax ñu ci bari nag bon kii bi moo leen ci dugal quoi ñoom ñoom ma euh, euh, euh, àdduna daal laa mën a wax moo leen ci dugal parce que da ngay xam benn musicien boo xam ne moom nëbbu ko musique lay def mbalax lay def waxuñu bu kenn man mii di wax yow am naa ay xaritu musicien ay xaritu mbalax maa nag yooyu mm-hmm. mais damay gis ni man li may def ak ñoom am na différence parce que man yàlla laay woy yeneen ci bi woy ñoom différence bi mooy wàjte ni bu majaali sa saxaawa yaa ay ma boo wax ni yaa laa tastaxilu anil huda istaxilu bi laa wa tilaawa wajtani majalis sa saxaaw mooy mooy jotaayu jotaayi waaye texe di ndax ñoom ci forme biñ koy defee ak nañ koy feccee ak nan koy du doon forme dukkat kay kay kay woy woyu diine mën na bég feccal sunu borom mooy day dukkat mais pas muy fecc feccu euh, mbalax jamono ji jamono ñi takk Seydina Mohamed moo moom ñu nekk euh, ba baara mundi wala five ñoo yem parce que maanaam ni ko gars yi di tëggee la mais boo demee ci euh, ñi xam tabala dëgg di ko tëgg dana dugg sa xol da ngay yàggaayu mais doo fecc comme ni gars yi di feccee baara mbay rëmtëm bi tam ramasu mbay <laughs> léegi léegi moo tax may la léegi ñoo ñu koy def xamuñu ko ñuy tagg parce que tey ji ña koy tëgg ñoo ñoo yóbbu foofu tëgg ba waaye yow mi boo boo ko déggee boo ko boo ko kii subhanallah alhamdulillah laa ilaha illallah loolu rëng benn benn benn kéréno rëng gin rëng gin xam nga li ma hmm. mais bu fekkee ni yow da nga ñëw di def fecc ko rëm tëmbi tam ramas ma d'une façon boo xam parce que dafay seetaan même si safari am na safar boo mos a seetaan xaw ma da du genre gars yi di tëgg mais di di di di mel ni luy lëmbal ak yooyu mais mais mais mais tamit ñu ñëw ñu ñëw tuuti maanaam am na genre yoo xam ne soo hmm. nekkee di nii di maanaam di ko teg si tompo gars yi duñ la faale. waaw mais jamono ji am ñoo xam ne il faut nga boole si ambiance gars yi dugg. Hmm. am na yeneen comme seen genre yi day am ñoo xam ne maanaam duñ ñëw tagg si kër Seydina Mohamed maanaam dañuy wax benn air gars yi hmm. ndënd bi jóg. jongo euh, may yu jug ñoom la ñu tagg Seydina Mohamed mais ñoom jongo may la ñuy visé waaw yooyu nag moom ku koy def moom jàppal ne doo ci sori moom yonent bi àndul maanaam tagg yonent bi moo fi bari nag ndax bon am léegi da ngay gis maam ku wootee guddi yonent bi sax daanaka li fay xew léegi dafay xew a doy waat mais nag yooyu moom ku koy def ku ne rek war nga ko mën a baax xam nga tey jii ku mel ni man am na ñoo xam ne sama benn bennal xasida yi moom moo leen moo leen moo leen di daaneel. danse ñoo nga may ñu si benn. voilà sama benn ba may ba may def benn benn benn di jàng moo leen di am na ñoo xam ne tamit tawale yi moo leen neex ci man. am na ñoo xam ne rajas am na ñoo xam ne ma sans instrument sans dara may way yonent bi moo leen neex kenn ku nekk boo bari ay ay ay ay ay ay ñoo xam dañ la sopp da ngay essayer le maximum di bégal kenn ku nekk ci say soppe. mooy waral tey nga indi benn bennal. andi jàng aw ñu aw la sans tabala mooy waral nga andi ak tabala mais tabala moom ci ku ko xam xam na ni loola moom lu lu lu lu lu tawféex la ndax yonent bi muy dugg Madinatul Munawwar sax gaa yi dañ doon tëgg di ko wayal taala al badru alayna min shaniyatil daal mais forme bi ko gars di defee léegi wutewul ak forme bi musiciens yi di def te te léegi nag moom fu mu toll nii moom dañoo toll jamono joo xam ni yenn tàggkat yeneen yi ak yenn ustaas yi ak yenn kii maam dañuy jaawale dëgg ak ak fen mën nañ jël fen sax déformé ko ba mu nekk dëgg te loolu moom loolu yàlla nañ ci yàlla mosul quoi waaw ah, comme que jógee nañ foofu noonu maanaam polémique yi nga xam ne moom moom nga déggoon li nga xam mooy si gàmm gi waaw Euh, euh, gàmm gi comme yan polémique dafa am polémique ci gàmm gi. Ah, ku si mel ne euh, Aziz Ndiaye dafa woote woon li nga xam ne mooy gàmm fee nga xam ne mooy këram. amaan nañu dégg si ay polémique yoo xam ne ba kenn ku si nekk di wax. waaw moom moom day man day li ma ci dégg mooy ma ngay jël ay naga kii xar di ko dimbali waa Tiwaawan ak di leen jàppale. bon polémique comme polémique dafa am polémique comme dafa am lu ci xew am déet. maanaam dafa woote woon gàmmu foofu. dafa woote gàmmu waaw ah, gàmmu ah, ah, jigéen ñi ñëw fa maanaam seen euh, solin yeeg. Mm-hmm. ak yenn ustaas yoo xam ne ñoo fa nekkoon. gars yi génn fa li nga xam mooy polémique. waaw léegi xam nga tey jii moom euh, euh, ci li muy def mooy maanaam chaque gàmmu. gis na ni dafay jël ay nag ak ay xar ak ay diwlin di jàppale nit ñi. par rapport nag moom bu ñëwee ci ci forme bi mooy li ñuy wax forme bi maanaam bu guddi si bi pour màggal ko. bon par rapport ak image yu ñu gis xam nga bon moom mën na moom këram mën na ne diw moo fi ñëw wala diw moo fi bañ ñëw mais ku nit xam nga nit ñi mën ngaa louer seize louer ay bâche mais nit ñi kenn mënu leen a te nit ñi aussi mënoo leen canalise waaye moom mënoon na def d'une sorte boo xam ne mënoon na leen nag kuy ñëw kat comme que dañoo ne Tiwaawoon te kilifaa fi ne dëkk Cheikh Sidi Hadji Malick kilifaa fi ne bu ñu sañoon kat kuy ñëw nanga yiw yiw boo xam ne day méngoo guddi gi mais xam nga tey mooy li ma la rek dafa am ñoo xam ni sunu borom da na a natt nattoo ay artistes ak ay nitu àdduna waaye nag nitu àdduna yooyu seen jikko fu ñu dem dañ koy yóbbu munoon ne même man même yow ba même Touba bu ñuy dem dañuy yóbbu seen jikko feneen ak feneen kon kooku xam nga nit ku ñëw ci yow moom nit ku ñëw ci yow euh, euh, mënoo koo dàq mënoo ko ne génnal sama kër voilà mënoo ko ne génnal sama kër il faut que nga bàyyi ko mu dugg surtout koo xam ne xëy na sekk ngeen àdduna léegi nit koo xam nitu àdduna boobu wala nit kook moo war a xam ne moom jullit la te day dem gàmmu ji te guddi yeneen ci bi lay lay màggali léegi moom buy dem moom moo war a maal boppam wormaal guddi gi xam nga ndax si je me moom moo war a moom moo war a wormaal guddi gi mais ku mel ni Aziz Ndiaye bu bu defee euh, guddi gàmmu man ci li ma gis mooy ma ngay euh, ma ngay ma joxe ay nag ndax man gis naa ci sama xarit Pape Amad Ndiaye maa ngi koy nuyu mu ngi active TV euh, may na ko nag ak ñeneen ak ñeneen comprendre baax la ma la Mansour mbay nga xam ne maag moom àjjuma gaaw la sama jumeau la may na ko nag may ko may ko ay ay ay ay ay teraanga yu bari ci gàmmu gi xam nga tey ku mel noonu bu ma gisee muy def loolu alxuraan dafa ne maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa nañ mais ku euh, suuru gàmm gi nag ña nga xam ne ñooy ñëw foofa ñoom ñoo war a comporté woo xam ni man damay gàmm ji te gàmm dafa am li mu laaj yi gërëfaas yeeg yenn kii yeeg yenn kii yëpp naa ko bàyyi ndakaaru ba ma gàmm ba pare ndax benn fan la bu ma gàmmoo ba pare ndax tamit kenn ku nekk as njaay li muy liggéey ci boppam la def ala taziru waziru wisratul tiyaaba ga mu nekkee moom ma nga ca ma ngay dimbali nit ñi léegi nag yow boo demee gàmm di yow yaay fexe man maanaam ñu nangu sa gàmm maanaam mooy li sëñ Tuubaa wax ni nan ko màggal ci sunna boo ko màggali ci sunna àjjana képp la yóbbu ah nag moom defe naa ni moom moom man gisuma ci benn benn benn benn inconvénient par rapport nag ni mu ni forme bi forme bi mën naa ñaaw maanaam ndax gudd yeneen ci bi ay gerefaas ak ay yëfi àdduna moom na mën a ñàkk mais par moom moom nag moom it aussi munu leen a mënu leen canaliser franchement mënu leen ko parce que dafa woote rek léegi nag mënul wax ni boo ñëw sama kër lii ngay sol ma mun na wax mënul ma boo ñëwee kii nag ku sol soloom ba ñëw buntu kaam du ko ne doo fi dugg bu fekkee wala rëm la mënu ko ne doo fi dugg kon nag ma damaa jàpp ne yooyu moom amul gisuma ci man moom gisuma ci kii quoi waaw. <laughs> ma yow moom gisoo kii mais dañuy dugg li nga xam mooy wàllum li nga xam ne euh, ak clientèle li nga xam mooy dëkk bi. ay jamono déggoon nañ fi ki génn wax ay wax yoo xam ne jëmale ko si kër kilifa diine yi. ana na nga ko jàngatee. Euh, kan Cheikh Omar Diagne ngay wax. ah waaw maam Cheikh Omar xam nga tey bon li mu def ci yoonu murit maanaam euh, euh, sëñ Cheikhouna mu sëñ Baara nga xam ne yaayam di maam Aji Bousso ma xam yaayam bu baax nekkoon kër gi foofa. doon fa tarbiyaw sëñ Seexuna ku ko xam xamewoo ko ci caaxaan te sëñ naa moom moo yor euh, euh, relation extérieure comité d'organisation bu màggalu Touba ganu suñ Touba yi nga xam ne dañuy ñëw màggal si at mu ne dañ leen di jox li nga xam ne mooy méridien ngir ñu dalal fa ganu sëñ Touba ñu bind leetar ba ba leetar ba demee moom mu ba moom xëy na dafa bañ jox ganu sëñ Tuubaa yi daluwaay boobu waaye eh, li sëñ seexu naa def moom moom la war a def moom nag eh, bu fekkee dafa am benn xol boo xam ne da ko jëmee ci yoonu murit jëmee ko ci sëñ Tuubaa loola moom la dama jàpp ni rek daf ñuy gën a ñun mayaat fulla ak fayda ak ngor goo xam ne ndax ñun mosunoo jéggaani dara ci sëñ mu sawaa ci sëñ Tuubaa ak sëñ Modou Moustapha ba ci ba ci sëñ Tuubaa ak sëñ Modou Moustapha ba ci ba ci sëñ Muntaxa mi mosunoo jéggaani dara xam nga ku jël trent quatre milliards def ko ci ay université tabax hôtel bu toll ni cinquante milliards tëwunu waaye dafa am yoo xam ne boo koy booy booy booy bañ sëñ Tuubaa sax li li peex wax soo ko fësalee kàr jaaga rey soo ko soo ko noppiwaalee poson lay doon ci yow dana rey te doo te doo te nag moom lan nu wax te teguñ ca bët moom la nu gën a gëm ka kaasu kafe gu ñu tiim di ko naan nun noo war a am fulla nun ni gëm Sëñ Tuubaa ñooñu àdduna yi ñooñu politique yii ñu balee nag seen yëf te nu yem ci sëriñ bi waaw ndax Sëñ Muntaxaa mii dem nañ ba benn moment boo xam ne bokk na ci waa Tuubaa googu xamuñu lu nu am ndax daanaka ab politicien dana wax sax ñu jël waxi sëñ bi ah di ko méngaleeg ah, waxi politicien boobu dem ba naan politicien boobu moo nu gënal sëñ bi xam nga loolu bu ñu demee ba toll foofa war na nu mën a xoolaat sunu bopp ñun nañu xam ne ci sëñ Mourou bu ba ñuy defar raay bii ba raay bi du jóge fii ba tubaab ba naan ko pour nga defar sa jumaa yi bàyyi bi il faut que raay bi jóge njaareem dem tubaa mu dugg kër maam Cheikh Ibrahima Fall bi ko sëñ Fall defar mu taalibe sëñ Tuubaa yi la woo bi bi bi ko sëñ Abdou Lahad di di defar di laaj trois milliards yi taalibe sëñ Tuubaa la woo bi ko sëñ Saliou di defar taalibe sëñ Tuubaa la woo bi ko Seex Sidi Maxtaar di ko yokk jumaa ji def ko juróom-ñaari sóora lii taalibe sëñ Tuubaa yi la woo sëñ Muntaxaa lépp lu mu ciy def taalibe sëñ Tuubaa yi la woo sëñ Tuubaa am na lépp déggaaniwul dara li koy firndeel mooy que ni dégg naa fan yi ci ci ci ci assainissement bi rek Ablaye Dia Séniko sama mbokk taal bi nga xam ne noo bokk Daaru Salaam maa ngi koy ziar di ko ñaan suñ borom defal ko tawféex maa ngay ñaan ndigal pour que buñ buñ ci amee ndigal sëñ bi woote ko rek ñu defar assainissement Touba moo la woon ne sëñ Touba am na lépp xaarul ci état wu dara te loolu mu doon xañ nganu sëñ Touba sax vingt millions ñett nit ñoo ko mujj jël en charge kii moo jël oto yi kii jël logement bi am koo xam ne nag far nag jël na lool chaque màggal léegi moo koy fayal kim waaye moom mënoon naa bañ a nit ki même boo boo boo àndul ak yoonu murit ndax àndoo ak Sëñ Tuubaa àndoo ak yoonu te Sëñ Tuubaa def ci réew mi loo xam ni waxuma la réew mi rek waaye àdduna la la wax ndax dal la ni yàllaahu alal muhammadi wa xaadalil muhammadi lil samadi daa dem ci yàlla mu tettal ko rasulillahi mu wax rasulillahi lu ko kenn waxul salaatu sitta bi marqi sitta taati baata ma atiché yi année compte douze mois six mois pour yàlla les autres six mois c'est pour Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nii la suñ tubaab daan dundee daan yendoo koor di fanaanoo naafila ba rasulillahi mu am ci rasulillahi lu ci kenn amul yàlla rasulillahi jël ko yóbbu ko ci suñu borom mu di ko tagg ba suñu borom ne ko loo bëgg mu ne ko ijji al rujuu yi la ko wax ilaa xaw mi naa defal sama dellu ci waa Sénégal muy mbégte ci ñoom suñ tubaab ne yàlla wa tag fi naa yow ma jam yi xalqi niraana te àllaaxira na leen musal sawara sëñ Tuubaa loolu la ñaanal waa Sénégal waaye yow mi juddoo Sénégal yoroo Sénégal màggee Sénégal nga ne sëñ Tuubaa boobu mooy sama noonu loolu loolu noonoo sëñ Tuubaa yàlla mi def siñ Tuubaa li mu def moom nga noonoo yeneen mi def sëñ Tuubaa ni mu ko def moom nga noonoo te sëñ moom ku ko noonoo ku ne na moom te xam ni moom da ca teg sa bët moom da gudd fan danga teg sa bët yoonu murit ni muy tàqi ak xéwali na muy saawaane na muy baawaane man dama jàpp ni maanaam sëñ Tuubaa def noo nar a dimbali pour nu xam ganu sëñ Tuubaa yi nu wut ay dalluwaay yoo xam ne àll Tuubaa googu ñu def ko ba mu mucc ayib ngir ganu suñ tuwaay bu ñëwee daal di dal waaye loolu mu def ba andi fi polémique ak merloo muritu suñ tubaay loolu loolu man daal xam naa ne daal kéemaan la moom daal moom ku ku ñu jara yërëm la moom waaw ku ñu ku ñu jara yërëm la ndax suñ tubaab moom naa la xamal ne ku ko bañ ci mim réew nar ngaa sonn sa àdduna waaw nar ngaa sonn sa àdduna Euh, bañ Sëriñ Tuubaa moom suñu réew la moom catastrophique la mm. léegi à part boobu la dugg li nga xam mooy actualité mm. naaw mañ defee su nguur gi si mois mm. euh, gi ak lu bari xew si en tant que citoyen noo jàngatee nguur gu bees gi waaw nguur moom xam nga nguur gu bees gi moom lu ngeen di ñaanal rek mooy euh, dañ leen faloon faloon ci yërmande ndax ñu bari dañ leen a yërëmoon àndoon ak ñoom ñu euh, waxante woon ak population bi waxi gor léegi nag euh, buñ demee ba ñu jël lépp jox leen nañu xam ni population boobu ñoo leen di bàyyi xetam yërëm leen ndax tey jii am na ñoo xam ne tey ñu ngi euh, ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci kii ñu ngi ci réew mi àndoon na ak ñoom doon liggéey ñëpp faral leen ngir liñ doon wax askan wi kon ñoom lu dul yërmandeewu askan bi waruñu caa waruñu caa dox te loolu war nañ ci def seen kéemtalaay kàttan te man bu ma sañoon kuy wax ak kiy jëf mënuñoo tolloo mënuñoo yem bu ma nag ñu wàññi wax ji wax ji nañ ko wàññi te te te jublu ci liggéey bi ndax foofu la leen askan wi di xaare ndax mandat moom li ko jeexal dafa yomb daanaka li nga def li nga def juróom-benn moo lay def loo li def juróom weer moo lay def loo at te ab mandat moom boo ca defee ñaari at ak genn waal te tracé woo waxoo yoon wi nga xam ne foog nga bëgg yóbbu réew mi ab découragement mën naa am te bu découragement amee rek catastrophe te it ñu bool ñu ñu woo ñëpp ñu ñëpp maanaam dafay am ñoo xam ne dañ nekk ci nguur gi nekk ay ay ay ay ay ay ay homme d'affaires nekk ci nguur gi nekk ci réew mi nekk ay homme d'affaires nekk ci réew mi am fi solo lool ñu impliqué leen laaj leen seen xalaat ndax ñoom seen xalaat rek mën naa bañ a doy ndax ñoom bu ñu jàppee ni ndax nguur du noona ñëpp xam nañ ni Sénégal toll nañu jamono joo xam ne jamono ju ju ju metti la jamono ji dafa xaw tar trop comprendre léegi nag loolu li koy waral bokk na ci ñoo xam ne ñoo leen woteeloon tey ji ñoo jël tey gaal yi di dem ndax réew mu metti kon nag nañu gëstuwaat askan wi gëstuwaat ñi nga xam ne ñoo nekk ci barabu liggéeyukaay yi boo xoolee tey jii macha allah am na sama benn waay joo xam ne ma nga ca RTS di liggéey waaye nee na Pape Ali moom macha allah euh, ah, wàcc na commencé na comprendre xam na ni euh, foog mu jàppale ki nga xam ne mooy jeunesse bi fe ña ma fa fekk ñuy liggéey mu bàyyi leen ak seen avantage comprendre baax la ma la jàppale leen te jéem a doxal boîte bi mu jëm kanam parce que tiraillement amul fenn fi mu buggoon yóbbu salaire yi de convention deux mille cinq ci li ma déggoon xama ndax moo am wala amul bu ko fa yóbbee ci koo xam ne xam nga 2005 ak léegi li xew ci diggante bi dafa dafa dafa kii eh, bu mu demee ba toog xool xalaat tey yi mu ngi nii mu ngi ci jàmm RTS mu ngi ci nee na ma gars yi déggutoo leen kenn di kaas wala kenn di wax que noonu la moo sànq ci suba tamit maa ngi dégg El Malick syndicat yi nekk aéroport mu ngi koy gërëm ci affaire boobu maanaam yooyu moo am solo daal maanaam yow mënoo ñëw ci benn boîte nga fekk fa ay ay ay nit ñu am ñu sénégalais comme yow ah nga bëgg nga bëgg nga bëgg leen a toroxal lu day doon loo xam ne dafay dafay metti daal moo tax daal ñoom nañu yërëm askan wi nañ leen yërëm nañu yërëm askan wi bu baax te xam ne askan wi moom moo fal ndax buñ ko deful rek bu askan bi wanee ginnaaw mbaa mu mu wëlbatiku si ñoom rek lii metti si ñoom lay jóge te loolu euh, ñaanoon ñu leen ko wax dëgg yàlla li metti si ah, ñoom lay jóge nga xam naa lu ñu dese si temps bëriwul. Mm-hmm. gën naa ñu wax euh, li nga xam mooy dernière question bi. Mm-hmm. gën naa bañ tasee li nga xam mooy assemblée. Mm-hmm. tey gis nañ ay parti yu bëri wàcc commencé collaborer puis dem ci li nga xam mooy élection yi. na nga gisee euh, parti yooyu noonu. lu si xalifa ni Khalifa Sall Barthélemy Dias euh, kii nga xam ne mooy waa PUR. ki nga xam ne mooy Pape Djibril Fall ak ba Anta Babacar Ngom ak ba ak kii Bougane Gueye Dany parti yooyu noonu noo ko gisee. waaw ndeysaan euh, tudd nga ci nag parti boo xam ne bu ma neex lool muy piir ci sëñ Moustapha si euh, almaxtuum muy nit koo xam ne Sénégal xamuñu ko sëñ Moustapha day koo xam ni euh, li waykat bu ne la ca maam lépp setu koy jël ba yowmal xiyaam wàlliw la boo xam ni daanaka xale yi sax ñoo ko gën a xam mag ñi sëñ Moustapha du gënewu kenn borom Moustarchidina wal Moustarchidaat doon nit ku baax doon nit koo xam ne ci njàngaleem. Mm. danaa ci ñëw ci njàngaleem xam nga pur boobu bii passé polémique amoon na ci gàmmu gi. Mm. gars yi ne sëñ Moustapha ni mu waxee nangam ak nang te pourtant sëñ Moustapha commencement waxtaanam commencement waxtaan mm. mais ni mu àndee luxatal arabiyya bi ni mu àndee naxaw bi andi sarfu bi maanaam andi xam-xam waxtaane ko. mu dem ba benn euh, mu dem ba ci boo xoolee fond bi muy wax ak euh, premier ministre Ousmane Sonko bi muy wax moom ci benn parti bu ndaw la wax ak moom ah. mais gars yi jël gàmmu gi yëpp ne euh, Ousmane Sonko la doon doon kii nu mu tudd la doon dal. non xanaa ma dama ne mais est-ce que ñii déglu nañ sëñ Moussa Wa te sëñ Moussa Wa quoi qu'on puisse dire bi nga xam ne gars yi ñëpp war nañ Ousmane Sonko ginnaaw nag sëñ Moussa Wa moo taxaw di ko jàppale sëñ Moussa Wa ku fi jàkk am problème sëñ Moussa waay taxaw akib xalifa Sall bañ ko fi naree tëj muy jooy sëñ Moussa waay taxaw bari na moom kay mooy jàppale ay policiers ba mu dem ba àgg ba policier mu boot ko roor ko ba ñu dem ba àgg ñu daal di koy won ginaaw waaye sëñ Moussa waay xam moom nag am na fulla joo xam ne ak fayda joo xam ne moom moom li mu la war a wax moom la la koy wax amul ku bind quoi dana dana ku yàlla bind koo xam li mu la war a wax bu la ko waree wax dana ko te pourtant la mu ko wax c'est pas méchant bu gars yi amee dégg-dégg genre gisatuma la te ba muy metti dama dama damaa taxawoon du genre loolu dafa neex parce que tey jii muy Ousmane Sonko muy Diomaye muy Barthélemy muy Macky Sall muy Abdoulaye Wade mënuñoo jox Moustapha Sy lu mu amul Moustapha Sy almaxtum laa rom mu Serigne Cheikh borom Moustapha Sy diine wala Moustapha Sy daat amul politicien bu ko mën a jox lu lu mu amul Serigne Moustapha kon nag kooku dalay dalay apporter plus mais du la apporter moyen du la du la kiiwal moyen te fi mu waxee c'est pas c'est pas méchant mais gars yi jël ko dugal ko ci benn gaam boo xam ni nii du ci wax day gis ay xale yu ndaw def ay vidéo di attaquer Serigne Moustapha waaye danoo xamul ku ñuy attaque ndax kooku buy dox doxul ak moom kese buy wax du moom mooy wax buy jëf du moom mooy jëf waaw kon nag ku mel noonu deesu koy bàyyi xel bu baax a baax ci réew mi tey dafa am nag kàddu ci réew mi dafa am baat ci réew mi moo tax boo gisee tey jii li nga ma laaj léegi politiciens yi coalition yi ku ne bëgg a daw wéeru ci moom parce que organisation bi mu yor amul benn mouvement wala benn parti politique bu ko yor muy mu Moustapha kon nag moo tax gars yi di organiser wu yenn nga xam ne tey jii xaw nañ faible tuuti dem ci parce que bari na fii nii ñu fi amoon ay maire wala ay ndombal tànk Moustarchidine ñoo leen boot musaasi diini wal musaasi daati ñoo leen boot ba ñu àgg fi ñu àgg kon na seen coalition yooyu ñuy def euh, xaw ma xaw ma coalition bi au juste euh, gësuwuma ci noonu bu baax a baax a baax mais lu ci mën a xew daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm waaye nag euh, sëñ Moustapha moom nga ci tudd muy pur franchement nit la koo xam ni war nañ koo bàyyi xel ci réew mi bu baax a baax a baax baax a baax te du moroom doo koo xam ne ku ni sànni xeer la wala ku ni nangam ak nangam yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam sunu borom guddal fanam te wéral ay cëram te liggéey bi mu naal liggéeyal ko maamam Serigne Babacar Sy liggéeyal ko maamam Cheikh Sidi Hadji Malick yàlla na ko yàlla taxaw Moustapha boo demee ci euh, course ba boo Moustapha boo xoolee sax xam ne kii du moom kese ku nekk fay ñëw waaw man bu ma bu ma bu ma demee bu mu taxawee buntu këram mbaa ma romb fa mbaa mu dugg fa sama xel day dem ci waa ahlu badar wala sama xel dem ci medinatul munawwar parce que dem naa fa benn yoon sama xel day dem foofu kon kooku noonu nan ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ay gone yu ndaw di génn di ko xas ak di ko ak ñoom loolu moom yàlla nañu ci yàlla musal quoi suñu borom defal ko tawféex yàlla na fi yàgg ci wér daal. yàlla na ko musal léegi dañ bëggoon a xam ñu tàggatoo ndax temps bi ñu si temps jeex na ñu bëggoon a xam sa dernier mot. waaw euh, sama dernier moom mooy le 7 décembre incha allah ñu ngi euh, ñu ngi waaj fii si sant Derklé bi euh, di woo jullit yi yëpp diwoo woo ñi nga xam ni ñooy suñu soppe yi am di jàmm yi di woo waa Jëppal Derklé di woo waa Xaar Yàlla waa Liberté 6 di woo kilifa yi nga xam ne tey jii amante ne ñoom jàmm ak salaam bàyyi ñu kenn di leen wax ni le 7 décembre. incha allahu rabbi euh, rasul Modou Moukabaro day woote fii ci sant Derklé bi guddi yonent bi sallallahu alayhi wa di di ci woowaa Dakar midi ñoom sax ñoo koy couvrir ñoo koy couvrir incha allah di ñaan suñu borom defal leen tawfiq di ci woo cheikh bi cheikh Alsane Sène te xam ne am na way yoo xam ne ñun ay wayam la ñuy jël di ko way mhm. ndax moom way na ci yonent bi lu ne moom cheikh Alsane Sène way ci yonent bi lu ne moo xoo boo xoolee da nga xam ne am am na ci yonent bi daal voilà du du du ñu bari dañuy gis taaram googu ak kiwam boobu waaye eh, ya yeneent bi am na lu mu ko defal ndax way yooyu mooy yonent bi ku yonent bi ilhamul deful ci yow li muy def ci yow doo ko mën a wax ci rasulullah kon nag ñoo ngi ñaan suñu borom ah, def gën koo sàmm suñu borom gën koo defal tawféex di woo am di jàmm yëpp bàyyiwuñu kenn ñoo ngi ziyaaraat ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw dama am sama Nazir man sax am naa doom bu tudd Nazir moom Nazir laa ko tuddee. Euh, Nazir sama xarit la. nit di nit ku baax aale kumba. di nit koo xam nit social. di nit koo xam ni euh, moom laa tuddee sama doom Mouhamed Nazir. waaw moom moo nekk si kër gi. voilà moom moom moom moom moom nit koo xam ne daal. Euh, nit ku effacé wu aussi. nit kuy def social te boolewul dara ki wax. moom ah, waaw mooy Nazir Mouhamed Nazir. aale kumba boolewul dara ki wax. ba pare dal nag. ba am force tranquille nga xam ne day nit ku baax ma bëggal ko sama bopp waaw loolu dafay am quoi moom rek laa am gisoo man j'ai sept amis milliardaires mais moom kese moo ci koo xam ne bu mu amee envie song ko pour mu jox ma dara ma ma dama koy def mooy sama xarit boobu muy Mouhamed Nazir mais ñeneen ñi ci des ñëpp noonu mi xam ne ci am na ñu mu ci xam am naa xarit yoo xam ne c'est des milliardaires mais duma ma taxaw seen buntu kër du ñu xam sama soxla du ma dem ci ñoom mais Nazir moom da maam day nit koo xam ne bu la bu la teralee sax bu la joxee xaalis du bëgg loxo gos bi xam waaw du koy du koy yonent bi foofu dëgg la yor ko ju tedd la yor foofu yàlla na ko yàlla gën a taxaw bàyyi Aminata Nazir naaru ajangu ñu dërgën ak Baye du Samb yàlla na yàlla sàmmal ko boppam defal ko tawféex te yokk maqam yokk ay tram du nuyu bu baax Saliou Samb magam moo daaw Balla ak euh, moo du Kara Thiama bàyyiwuñu kenn di leen di ziar bu baax ak sama njëkke ba Sophie Guèye Sophie maa ngi leen di ziar bu baax a baax di xanaa ñu way Nasir rek ci <laughs> ci benn كل من عليها فان ويبقى ان لا اله الا الله وباك دينا فمبريا في من نبي خلو الله كامل تياسين نور شافينا كم يمنين سيدنا محمد ياي محمد النذير ياي محمد البشير محمد رسول الله أكمل الورى سيدنا محمد خلقا وخلقا سارا كن يمنين ban ko maye foofu la maye nabi baayu fatima nabi sirna muhammad kunu bind yaa tax kunu bind yaa raw kunu bind yaa gën sirna muhammad mooy waaja moo gën ñi gën ñëwoon gën ñëy bëgg ñëw waaye ne leen maye min xalliku linnaasi yoneen jar naa jooy. ah Anta jërëjëf. dama commencé rek carte bi fees dafa daw ba si di carte bi fees. moo tax ma continué waaw dama ko enserré nag. waaw enserré fii.